appelé ku fi nekk Bawdo bi man moom laa soxla asalaamaaleykum. nakam bro ah, a ngi. yaa ba boo yaa tura yaa ah, tura naka. ah ma bàyyi dara. ah waaw waaw nañ ko tànn rek. ah su nekkee ma bàyyi dara ñu ah. stop. bro naka. non yaa ngi yaa tura naka.

suñ suñu saa jaaxal ma loolu noonu de. Hmm. Ah, léegi. Euh, zéro zéro zéro minus zéro. ah zéro zéro la di kaw la léegi. zéro divided by zéro ñaata. zéro divided by zéro. ah zéro divided by zéro. voilà moom la yow jégale moom ab danga. waaw lan mooy akuna mata. non akuna yow léegi mi ki ma fa. waaw loolu loolu. akuna waaye benn gaynde la rek ay benn golo la xaw ma akuna mata da booy. salaamaaleykum bro naka. Sinon man yaa tura naka wala ñun do boy ok all la ngoy akuna matata akuna matata waaw korka xawma loolu de ah ana do seetaan la yoon king non ok 0 minus 0 0 divided by 0 0 si naka demo school we xam naa la ah mm. really yeah kan mooy sa man fépp man suma Gambia artiste suma artiste yëpp Amérique lay nekk. muy kan. waaw xanaa même si li tijjee yi foofu waaw. léegi jox ma benn acapella ma dégg. li acapella benn comme Rix Sam. waaw waaw non dégg nga laa jox Rix Sam. waaw Korka. Ah. what is the meaning of AC. AC. waaw. AC AC bari na meaning. AC AC moto moto. what is the meaning of AC air condition. air condition waaw ah am na AC tamit beneen beneen beneen miini la lamin waaw man bu AC bi laa oto DC la lamin DC waaw non xaw ma DC lu miin ah, man ci bu ñankato bu ci nu waxee naka nga tura ma njaako <laughs> ku jaawul ah ku jaawul ku jaawul ok léegi dama bëgg nga wax dara si njaago waxal tey mu takar naasee mu mel ni téeméer yomba si butéel wako ko si njaago eh man déggu ma Ndiago bu clean de. <laughs> ah nekkuloo Ndiago bu clean déggu loo Ndiago bu clean. Hmm. léegi zéro plus zero ñaata la. zéro plus zéro. Hmm. <laughs> still zero la nekk. zéro minus zero zero minus zéro. Hmm. still zero zero divided by zero zero divided by zéro still zero if you divide zero, dara moo fa nekk dara nekku fa di. How can you divide zero by zero? Divided by zero. Zero. If you divide it by zero, it's still zero. How so of you? I'm sure it's still zero. Try ko. <laughs> zero kaya ko so ko divide ak zero kaya still zero. ah. is nothing on it. Ah. Yeah. Okay, wa bana legi boy den de wax rek ñu naan la ne akuna matata. Akuna matata lu min? No, I don't know about that. Ah. Bo do rega boy ñu boy akuna matata. Ah. Yeah. Ah, okay. Wa bana tarap ya ngi ba. So rabana. Man way kat la. Ah, way kat nga. Yeah. Yeah. Si lo de woy ban ban la nga de woy? English. English. dañ ñu jox benn acapella ñu ñu nañ dem all right If I hurt you, my girl, tell me, make I confess. I cannot find nobody, now only you be my context. If you search in my dictionary, now only you be my empress. So let me confess to you, I no lie, you my world best. So this kind love I never see before. This kind sexy I never made before. yeah man yaa ngi baax soo ñoo album nag wala EP wala dara. ah soon rek. ah soon. Eh. who is your favorite Gambian artist? my favorite Gambian artist is ST. ST. Yeah. okay thank you. boy boy borom Minas bu ngeen daw boy Pape Malick ah waaw waaw benn bro bro nakam nak. boy ah allo boy se xaaral ma call la bro yaa ngi okay. maa ngi cool borom Minas yaa ngi baax. ngi am jàmm nga ne naka nag. ngi ya, sant ngi cool. la de baas wala romana. ba dee baas bi romba na ah. ondi nine la woon ñu fekkee déwén amiin Allah ak amiin Allah ah. waaw nii kaay ñu wax kaay maa ngi kuul waa léegi mhm. yaa nekk Pa Malick borom Minas Pa Malick borom artiste yi Pa Malick luy fuy Minas Minas restaurant la boo xam ne si diggi Manjaay Kunda la nekk ñu def ko standard boo xam ne gars yi dañ foog nda boor bëri rek la war a nekk ñu indi fi Minas indi heart of Manjaay am fi event center am fi restaurant am fi VIP lounge di jaay lekka yi nga xam ne amut si benn restaurant foofoy Minas. Ah, foofoy waaw. waaw baax na ah. Ah. benn bu gaaw. waaw booy den dee jékki-jékki rek ñu naa ma ne Hakuna Matata luy Hakuna Matata. Hakuna Matata. waaw loolu xaw ma ko waaye xam naa ne laaki nongo la. lan la min ko. ban laaka la. Hakuna Matata laaki nongo. laaki nongo la laaki nongo la. waaw waaw am Pacific tribe wala wala judee laaka laaka bu. non pour man laaki nongo la so it's a nongo language boo xam ne ku nekk mun na koo laaka comme euh, naka la euh, akabila ongo bi non ah, waa waaw comme noonu la rek waaw noonu la ko téye amul problème léegi ah, ah, euh, minus zéro zéro minus zéro is zéro divided by zéro zéro divided by zéro is zéro soo ko divided by zéro zéro la laa indi laat because zéro du dara dara soo ko divided ak dara dara la laa indi rek zéro la zéro divided by ma ne zéro. Ah. waaw ban yàlla Gambie am république. république foog naa 1970 la de. 65 hmm. mooy indépendance 70 mooy république. Ah. waaw ah, non yaa ngi baax. non seen la a <laughs> cee. ah xam nga ñëpp xamoon neen Madragon. waaw bala ñu nga delloo ñu gars yi joñ tuuti rek. man maa dee wéyloo mag yi nag. ok door noonu. waaw daa mi GRTS noonu. waaw dooral ñu ma gis la barde nga di saale waaye duma la faale ndig yaay sama bébé kon xale bi ey yaa ngi baax thanks bro ah. ah, yaa ngi baax yaa ngi baax all right yeah ah, dañ fi ñëw ba dajee Awa Gambe fu mu nekk di rehearse ñu dem si biir kaay leen te surprise la de Awa Gambe mu nekk di rehearse tey kaay check check check ey ah salaamaaleykum so good way. suma gars yi xoolal xoolal li mooy si talk dañoo tey nag dañu wóor tey dañu wóor ba ñëw fekk awa fu moo rihaase pour show yam bi xam nga benn gambi bi la waaye léegi ñu si laa meññi borom Pël Fuuta laa nag suma olof soriwut waa xaneen awa moom dinañu ko leeral naka may baax yow fekkee la fii tey def ni ah dañuy back to back December 7 ah. Q City nara def live band back to back December 7 Q City yes so da nga surprise nit yi man uñi secret bi live band def dama de bu la so ci live band Um, parce que dama bëgg jox nit ñi 100% of me. Mhm. Oh, play back one ne leen leen képp ku ñëw foofu daal nga bég sooy ñibbi nga am looy neex looy nettali daal dañ bëgg a make history change the music game hmm. yeah change to back bi awa kaay leen support ko live band la bi amul ne ñëw play benn CD cuxu cuxu cuxu cuxu yes yes déedéet bii dañu xoolal ñu fi nekka one two three four five ak ñeneen ak ñeneen ñoo fi nekka xoolal live band la moo nekka Q City on the seven anda awa Gambia xoolal jigéen la nag kaay leen ñu support ko téye ci ba mu dëgër na jigéen yëpp génna ci xool leen lu ñu gaay dee jox moom dinañu koy fi jox lu ñu gaay dee jox gaay yi bëgguma tudd tur de dinañu ko jox ba mu yes waa ji kor ka xam nga Gambie dañoo am daanaan te ku am ni ku am ni awa bu xew xewlee Gambie yëpp war a génn waxuma Gambie waaye àdduna yëpp dina génne ndax mooy suñu daanaan mën a wëy di wëy ci accord xam nga wëy nag dafa neexut waaye di wëy di ko teg ci accord ñun ñu koy pileel ñuy feex xale bi moo nu koy jox kon dama ne na gars yi génn na ñëpp génn ñoo support Gambiel la ñoo ko moom awa suñu Gambiel ah ñoo ko moom kon dama bëgg na ñëpp génn nu support suñu rak suñu xarit suñu doom ndax back to back loolu du ay fo suma gars yi back to back du ay fo bàyyi la ma bàyyi awa mu continuer ak riyaasam bi ma génn si mbedd bi waaw waaw awa gars yi waa Sénégal parce man yàggul moo jege Dakar waa Sénégal sax ñu ngi préparé show bi awa awa awa awa Séné awa Sénégambia Gambia ñu wax. Ah. awa awa Mali awa awa Afrique. awa Afrique awa Afrique. kon kon awa Afrique nekkatut awa Gambia awa Afrique so awa nak mu ngi rehearse pour yéen on the 7 of uh, uh, December Q City kaay leen support ko suñu xale la xam nga lu ñoo def kon ka street rock la you know what let's roll it waaw balaa ñu ko roll nañ àndaa advert yi. lan ngay def ngir dimbali say doom ñu màgg bu baax. man. damay xool bu baax lu muy lekk moytu suukar bu bëri. man moom lekk bu sell laa gën a faratal lu ci mel ni fruits ak légumes. diggante ñaar ak juróomi at xale yi dañuy gaaw a màgg te ñu bëri si ñoom dañuy faral di manqué yenn vitamines yi loolu tax ñu war leen jox lekk bu baax bu am njëriñ. moo tax man Nino rek laay jëndal sama doom mooy yaawur bu bees bi dolli ma génnee Nino dañu ko dooleel ak ay ferñeent bu si mel ni fer vitamine A zinc. ak iode nino moy yaawur bi nga xamantene ne ingrédients yi raxul dara xalé ye ko taxaju nak dina tax sama dom gëna a am wér gu yaram Nino yogurt am li nga xamantene moy iron vitamin A iodine zinc which will make you grow stronger with Dolima Milo par Dolima. Dolima ñoo indi price bu bees njëg bu bees in the am na fu nekk. is another time another caucus talk mooy loolu rek xool leen xam nga lu ma leen doon amal right now kooku moo nekkoon Awa Gambia xooleel Awa Gambia mu ngi am show bu rëy nag buy ñëw xam naa ne nag dina ma wane maa ngi ovala advertisal Awa Awa man suma artiste la waaw suma artiste la mooy loolu xoolal. Euh, on the seven la gis ngeen riage bi nee na soo mooy loolu rek Korka Street Talk la lii la amalantoo ci Korka Street Talk bi suma caméra lady bi tey moo nekkoon Eliza Sava Mendy suma driver bi moo nekk ah, ah, ah, Alonso 14 14 so bi nag maa ngi gërëm suma édito si di gërëm everybody Korka Street Talk la woon Eliza Christmas mu ngi ñëw nag suma boppi mbaam bi na ngeen def mbaadu suma suma suma suma mbaam bi Eliza nga indil ma ko soo mooy loolu rek Korka Street Talk lii laa amaleen tey see you next time see you next week mooy loolu correction mu doon la terek rek moi. mooy what is the meaning of akuna matata akuna matata means don't worry ah akuna matata mu ngi means don't worry ñu bari xam neen ko waaye ñeneen tamit xamuñ ko ah, si ban language la di language ah, di language fuñ ñu akuna matata mooy swahili swahili ñoom ñoo dee akuna matata meaning don't worry fu ñu ko dee gëna a gisee nag moo nekk moo nekk si lii ah, si movie boobu noonu zimba Lion King fu mu ko waxee booy doon woor yi kuna matata mooy loolu rek suñ fa jógee tamit ah, man doon la te zero minus zero is zero plus zero is zero now taxawal taxawal <laughs> zero zero divided by zero is zero Madou yaa ngi baax yeah zero divided by zero zero divided by is zero loolu it cannot go so soo ma weedee sama wéede jëlal li fi naka la tuddaat sax ah, ah, lii calculer to yoo tam balal ñu nga def zéro dividé by zéro erreur la la dee bindal zéro dividé by zéro is impossible loolu du mun a am ah, du mun a am fenn is error zéro dividé by zéro is error li laa lay amala to si korka si toog bi see you next time bye bye au revoir